góor gu siis te ngott te soxot góor gu siis ci kawlal te ngott te soxot lim xamut mooy sëy ak jabar du wut ne rek takk naa la jox naa la kët jox naa la dépasse sotop déedéet nu konoon borom toog kët baayam mbala mu toog di jaayi xorom xame boppam borom pay sëy ak yow ngir ne nga ko bugg bugg la ngeen war a jaamu yàlla yow ci sa bopp ngay tëdd ak borom borom ngay tëdd ak moom tëdd bu dagan yàlla di la ci bindal tiyaaba loo def ak moom nga siis ta soxot ta ngott boo ñëwee ci kaw borom mel ni ganaar gu sibutu rek dal di gaaw rek ci péelu rek dal di dal di borom te boo demee ci ñeneen ñoo ne takkoo leen di fa xam ay waxtu ci seen kaw yàlla di la ko bindal ay bàkkaat nga di ko jël mbala borom bala nga ko doon takk nga ko daan bégal mu di la bégal nga takk ko fi mu ne ngeen xam benn xat wala ñaar wala borom xam benn doom ñaar rek nga sànni ko doo dootoo ko bégalati te jigéen ñu bari féeg mi nag moo tax duñ xam jàmm fa ñuy ne ci kaw lal bi def seen bopp mel ni ñu ngi ñëw te ñëwuñ ñëw doo ko féeg jigéen juy féeg ñëw du xam jàmm kaw laal boo ci nexee góor te bégalut la ñëwoo doo ko péeg ne ko maa ngi ñëw te ñëwoo di di yuuxu naan te fekk ñëwoo danañ la robi surtout góor gu duut nit boo koy def noonu fay continuer rek wax ne lu tuuti lam lay jox doy na du jéem a seet yeneen ak yeneen di ko def ba bégal la ba yow nga mën a ñëw ñëwi dëggantaan xanaa nga jàpp si yàlla wax ko dëgg gi de nekk ma doon gat ma su maa ñëw ma doon gat ma doon féeg xanaa nga wax ko ko fa rusluwaay mooy dëgg gi wax ko ko boo ko def foofa ngay dee xam fukki doom di sëy di biit di wasin ak sëy ni méttee biit ak wasin di méttee te doo ñëw moom du biit du wasin te moom mooy ñëw guddi gu ne yenn yi dee neexu ta wax waaye booy sëy te doo njaaloo xamoo ku lay bégal te kenn ki la war a bégal du la bégal loolu neexul ci xol mhm. fu mu jaar yenn yi ñu màtt wax ko xawkaane gi fa saf te moom ci boppam góor fa gaaw a ñëw bu ñëwee rek tërër rek moom fay ñëw yow jigéen ji nag fa war a jàng sa yaram xam nu muy def ba nga ñëw surtout boo duxee jabaram farata la yàllaa ko santaane moo tax ñu wax ko ci alxuraan bi ne yow ngaa war a mën a indi jigéen ji balaa yow ngaa indi yow ngay ñëw jigéen ji fa war a ñëw waaye góori nit ku ñuul yu ci bëri fañ siis ta soxot moo tax ñu naan jigéen joo xam ne du man a ñëw fa feebar na def na na ñëwal boppam moo ko xam yow ñëwalal sa bopp